salaamaaleykum euh, mala lay nuyu di nuyu ñëpp ñuy seetaan ci Capa TV euh, di nuyu Soxna Hajara euh, ak maam Thierno tey ñuy bëggoon waxtaanee ci thème bu ci jàngu jigéen ñi la moo tax ñuy teel a bàyyi di jox Soxna Hajara mu nuyoo mbokk yi. salaamaaleykum d'abord maa ngi remercier ci présentation bi. sëriñ man nag li ma gis ci loolu mooy li tax xale jigéen yi di arrêté seen jàng bi mën na nekk parce que dañoo dem ba ci biir amuñ moyens yi ñu bàyyi te ñun ñëpp xam nañ ne dëkk bi neexul jàng bi yàgg na yooyu yëpp mi ngi ci biir tey jii ku sañoon nga jàng nga teral waajur mais soo demee ba benn moment nga xool après nga gis que ni jàng mi bi yàgg na li nga fay uti tamit gisoo ko. donc te obligé nga bàyyi nga dem xooli leneen soit nga liggéey soit aussi boo amee ay parents ñu dugal la si ay néegu sëy affaire yooyu noonu. jërëjëf soxna Adjara léegi ñu laaj maam Thierno euh, xale yi bàyyi jàng teel a bàyyi jàng bi lan moo ko waral. Euh, maa ngi nuyuwaat euh, xale yi teel a yaakaar naa ne responsabilité bi c'est partagé. mën nañ wax ne si si parents yi la mais mën nañ wax tamit ne si société bi la parce que parfois da ngay gis xale yi jigéen jàng am seen diplôme yëpp mais li ñu leen di laaj rek mooy eh, am nga jëkkër kañ ngay marié yooyu noonu après beneen côté tamit mën nañ wax ne si parents yi la wàllum jàng nañ leen di obligé soit ñu euh, ñu arrêté jàng yi wala ñu dem sëy suñ leen obligé ñu arrêté jàng yi mën na tax ne ñoom amul lu ñuy fayee seen pour ñu yeggali seen jàngi mën nañ leen obligé tamit ñu sëy parce que dañoo gis ne am nañ opportunité mooy ko koo xamante ne mën nañ wax ne borom doole la. pour ñëw si maam Thierno li wax mën naa ne par rapport ak société bi euh, problème bi ñuy joxe liggéey yi la parce que tey dangay dugg si réseau yi par exemple LinkedIn dañuy laajte ay expérience plus cinq ans affaire yooyu noonu tey jii soo gisee loolu lool mën na la tiital parce que danga naan man. kañ laay jàng 5 ans wala nga ne est-ce que man sama expérience àgg na a foofu wala genre yooyu noonu alors que am na yeneen yeneen ñoo xam ne say mag lañ ñoom yàgg nañ fi et tout sax vu que loolu yëpp nag da nga koy gis dangay ngay découragé après tu après nga dem nga ne damay xooli ji leneen. Euh, kàddu yi am na solo euh, di wax rek ni man dama yaakaar ni affaire yi xale yi ñoo bëggul jàng parce que nit ki tamit euh, jàpp naa ne soo bëggee jàng. yéen yi dal dara war a jaral. sëriñ waaw yooyu yëpp dëgg la yooyu mi ngi si waaye tamit imaginer yow ngay jàng say mag ñoo xam ne bari nañu fi ñoom ñoom ñoom ñëpp nga xool ne ñoom ñi ngi somme ñoo xam ne am nañu ay bac plus 5 plus 3 ñoom ñoom ñëpp ñuy somme loolu da lay découragé loolu aussi dañoo nekk ci société boo xam ne ay affaire de link dafay bari ay promotion canapé dafay bari léegi soo amee ay valeur ak ay principe da naan man lii samay valeur ak samay principe permettre ma ko donc tu es obligé nga dem xooli ji leneen. Euh, jërëjëf soxna Adjara euh, xanaa ñu jox euh, maam Thierno mu xuus si soxna Adjara wa si li nga wax jàpp naa ne nekkul benn yoon photo xale yi parce que même soo buggee jàng soo buggee jàng amoo amoo nu ma koy waxee sax. amoo choix si li sa parents yi bëgg nga def parfois da ngay gis xale bu mun jàng mais dañuy dem ba sa biir ñu génne ko école wala ñu ne ko euh, amuñ moyen euh, yegg pour nga yeggali sa jàng yi léegi nag même xale yi suñ bëggul jàng parents yi ñoom ñoo war a def parents yi parce que parent yi dañoo am responsabilité si xale yi ñoom ñoo war a fexe ba xale yi ñoom ñu dem yeggali seen jàng ba au minimum ñu am seen yenn diplôme yoo xamante ne suñuy suñu soxla yéen liggéey mu nekk am. Euh, su it nekkee day fi yem foofu rek parce que jàpp naa ne affaire bi tamit état bi tamit am na si wàll parce que duñ toog rek ne am ma moyen état bi xool ay doomam ñuy teel a bàyyi jàng mhm. loolu tamit euh, yaakaar naa ne état bi am na si wàll loolu noo ko gisee maam Thierno. ah euh, état état bi moom jàng bi moom am na si wàll bu ngand

ci dëkk bi soo xoolee fonction yu xaw a gën a am doole ay góor ñoo ko téye te mën nga gis ay jigéen yuy am diplôme yu nekk ci même niveau bi mais duñ am opportunité bi duñ am opportunité duñ am opportunité euh, décrocher liggéey yooyu noonu comme kii ni mu ko doon waxee parfois da ngay gis ay a ñoo xamante ne dañ dañuy am avantage pour am benn liggéey alors que nekkul seulement seen qualification moo leen ko may su ma ñëwaatee si moom li Mame na wax si responsabilité des parents mun naa wax que ni parent yi am nañ responsabilité mais mu responsabilité bi taxul ñuy wax loolu parce que tey da ngay yor sa doom nga am yéene mu jàng parce que fii ku sañoon tey sa doom dañ koy compter parmi les maire donc c'est normal mu bëgg doomam jàng mais danga dul am moyen yi pour jàppale ko ci jàngam tey da ngay gis koo xam ne yaayam ak papaam suñu añee duñu reer suñu reeree duñu ndékki léegi nga gis benn doomi ministre ki doomam di añ te du reer kooku moo ko ëpp niveau foofu mais vu que dañoo nekk ci dëkk boo xam ne moom xaalis pouvoir mooy def lépp ñoom dañuy jël seen doom yi ñu jël leen aj leen ci kaw donc même kooku noonu am kii bi niveau bi mooy maanaam ki yorul kooku noonu niveau bu mënti am foofu noonu du feeñ parce que tey jii doomu riche bi yóbbul na ko lépp. Euh, jërëjëf mais si si loolu noonu est-ce que jàng xale jigéen bi teel ñuy teel a bàyyi état bi amu ci wàll. am na ci wàll état bi am na ci wàll parce que tey jigéen dafa nekk loo xam ne dañ ko war a valoriser donc tey jii su ñu nekkee déjà si euh, population boo xam ne booy xool jigéen ñi ñoo ëpp. forcément dangaa war a def loo xam ne di nga mettre en valeur jigéen ñi comme ça ñoom ñu gën a gis seen bopp aussi gën a sawar ci jàngi pour nekk leneen mais bu dee dañoo bëgg a liggéey amuñu liggéey ñu bëgg a dugg fii mu tëleen parce que riche bi jël na doomam aj ko ci kaw te doomam amul niveau dañuy tayal ah, waaw euh, si loolu noonu comme état bi war na mën a protéger xale jigéen yi ba duñ teel a bàyyi jàng si nan la ko war a mën a defee dafa war a toog nii rek di seetaan ay doom di bàyyi jàng. no mën na leen aider si créer ay opportunités de travail mu jàppale leen. dimbali leen taxawul leen aussi tamit mu jàppale bu baax ñi nga xam ne seen doom yi euh, seen parents yi yoruñu pour comme ça ñu yombalal leen seen jàng parce que tamit jigéen moom lu nekkul ci ginnaaw du sotti derrière chaque un grand homme se cache une femme une grande dame du moins donc nañ fexe valoriser jigéen parce que jigéen moom ren la wax dëgg yàlla. Euh, am na solo dama si yokk tuuti rek di wax ni. jigéen moom yàlla moo ko may lim am jàpp naa ne ku si jàng tamit jigéen rek état war na la jël teg la fu kawe yooyu yépp nag euh, di jox maam Thierno mu waxaat si si ni état war a defee ba ba ba ba téye ay jeunesse am daal. Euh, maa ngi lay gërëm Serigne euh, état bi suñu mën defee ba fexe ba jigéen ñi gën a yàgg seen jàng. mooy euh, day fexe avant même euh, du da ngay commencer affaire bi nekkul si suuf ngay commencer si fin bi nga war a xalaat même suñ demee ba jàng ba pare lan lan lañ mën a am si jàng bi donc état bi normalement war na fexe ba xool nu mu tegee en place benn euh, benn programme boo xamante ne jigéen ñi gën a xarañ suñ génnee si seen jàng rek ñu am liggéey boo xamante ne na leen mën na leen téye seen. mën nañ bañ a wax seen àdduna bi yëpp waaye mën na leen tee loo xamante ne ñoom ñoo fay jàngee pour gën a fexe ba encourager jigéen ñi di euh, di continuer seen jàng mën na def tamit euh, ay prix yoo xamante ne dañuy décorer jigéen yu dàq jàng ci Sénégal nga xamante ne benn jigéen mën na nekk euh, mun na dëkk benn village walla ci ville bi après su gisee ni ki ñi ñi ngi décoré jigen ñi ni daf koy encourager mu continuer jangam ba atteindre niveau bobu euh boobu. jërëjëf maam Thierno euh, ñu jox euh, soxna Hajara mu mu wax ci ci xale yi dugg si sëy di téla a euh ci fot bi ci ñan la quoi xale yi la wala. wa waaw maam Thierno. Euh, foofu nga dugg moom dama fi sa war a wax parce que mën naa ne faute bi parfois ci yenn parents yi la parce que parent yi parfois ñoom dañuy jël dugal seen doom ci sëy duñ xam sëy duñ demee mais dañuy xool sëy bi lan la leen mën a apporter bari na ci yoo xam ne tey nga fekk benn maaxade nga ne ko da ngay sëy par force alors que moom xelam ci jàng la nekk déjà loolu faute bu grave la donc responsabilité bi ci parents yi la. te jàpp naa ne tamit état bi war na jug si loolu genre mu parents yi nga xam ne dañuy maye dañuy forcer seen doom yi maye leen mu jug si. aussi bari na si ñoo xam ni tey dañuy dugg si sëy parce que dañuy gis seen papa yi ak seen yaay yi ñu sonnee seen bii yi ñu ne man dama ciy dugg pour mën a aider sama papa wala aider sama yaay. donc soo demee ba si biir tamit nga nga daje kenn tamit mu promettre ne le promettre la que ni dina la aidé aussi dina la taxaw nga jàng sa jàng nga dugg si ba pare nga dem ba si biir loolu yëpp du si am nga am déception loolu tamit mën nañu wax ne foot yi seen jëkkër yi la euh, waaw soxna jara mais loolu noonu jàpp naa ni si lu ñu waroon waxtaanee la parce que ki jàpp naa ni doo jàng ñëw dugg si sëy rek nga xëy xëy dugg sëy après ñuy la léegi dangay ngay toog doo dootoo jàngite. waaw Serigne xam nga nag nit moo xaw a lëndëm nit dafa lëndëm te góor tamit dafa bëri ay jikko dafa xaw a lëndëm donc mën nga dugg ci sëy te carrément doo xam ki ngay sëyal genre personnalité parce que nit dafa lëndëm torop da ngay jàpp lim la wax rek que ni dina la aider. que yow tamit vu que sa pa sa papa ak sa yaay mooy sa lépp yow aussi da ngay dugg foofu parce que dangaa am envie am volonté de sa papa ak sa yaay pour ñu pour pour si leneen. mais est-ce que nit ki vieux da ko war a téye boppam quoi mais waru see nekk nii di xalaat euh, samay parents parce que négocier tamit dafa xaw a lëndëm te jàpp naa ni soo siy dugg war na nekk lu leer mais benn góor du jógee fee ne mën naa la takk après nga continuer sa jàng. pour ma loolu lépp war na nekk ci lu leer. fu xam ne mi ngi fee day ñëw sa vie mu ne la te parce que yow doo am choix doo am choix yow gis nga yow xool nga jaar nga liggéey uti nga liggéey amul ñu lay wax ay promotion canapé peut-être ak yeneen ak yeneen yow say valeur ak say principe da ngay gis ku baax genre moom lim la war rek nga mën a gis genre moom baax na moom bëgg na la aussi tamit ak yeneen ak yeneen ak léegi yow. loolu nga ressenti say parents nga xool say parents chaque jour ñoom duñu lekk duñu naan léegi loolu mooy tax yow nga dugg si parce que da ngay am envie dimbali leen ñoom ñu avancé yow aussi nga avancé mais tey soo demee ba ci biir gis ni kooku def defalu la loolu yëpp parce que tamit nañ waxante dëgg fii nii bari na góor ñoo xam ne dañ lay dig loo xam ne ci début bi rek mais buñu demee ba ci digg bi lépp la ñaari

soo xoolee si bi si ba léegi tamit da ngay xool soo demee boo si place yu yu gën a mag yi eh, soo xoolee am na si présidentielle yi waaj ñëw am na benn jigéen bëgguma wax turam waaye am na benn jigéen bu ñu présenté wu doon président mais da xool ni lu bëri ñu naan la eh, jigéen mënul jiitu dëkk di la wax wax yoo xamante comme si eh, jigéen ñi am même compétence que góor ñi moo tax parfois parents yi mën nañu wax ne ñoom dañuy forcer jigéen euh, seen doom yu jigéen yi pour ñu dem say pour am si avantage mais parfois mën na doon tamit par souci de bienveillance parce que euh, lu ñu mën di wax tamit parents yi ñoom seen doom ni ñu nekkee si jàmm rek ñu ñëw donc mun nañ def loolu pour encourager seen doom yi euh, pour fexe bi seen doom yi dund si ay conditions yu baax. mais société bi moo demee noonu parce que fii dañuy dañuy dañuy dañuy jigéen du fi jiite kon suñ gisee benn jigéen jóge fay ne ñëw danaan da day bokk ah. égalité des chances maanaam kii su bëggee góor fu lu mu mënti def jigéen war na ko góor fu mu bëgg egg jigéen war na ko mën c'est c'est c'est à de changer ça. nekkul dañuy société oh, moom. émancipé émancipation émancipation de la femme. nekk nekk moom war a mel moom dañoo war taxaw ne société moom mel ni euh, donc luñ def dara euh, suñu xoolee si yeneen société pas société africaine mais société occidentale wala mais bi historiquement c'est raciste mais gars yi fexe nañ ba ñu euh, progressivement ñu ngi fexe ba da ngay dem comme ay France da ngay dem ay. noir ñooy nekk si équipe nationale am na ay noir yu nekk si gouvernement bi donc ñun les société moom la moom dañuy arrêté dañoo war a fexe ba xool ñu changer mais loolu loolu loolu question société mais question culture la ñu suñu aada moom muy ngoo jigéen di ñu jiite moo tax kenn que ni jigéen mënul gouverner jàpp naa ne compétence bu góor mën am ba mën a gouverner jigéen su ko amee mën na gouverner émancipation de la femme li ñu wax donc jigéen mën na ku benn góor mën na ku te comme que dañuy wax ci wàllu état wàllu jigéen wàllu góor yàpp naa ne foofu noonu moom ay affaire culture utuwu fa dara jigéen mën na gouverner. waaw jigéen mën na gouverner euh, waaw jigéen ñi ñu ngi jàng jàmbar nañ parce que soo seetloo année yi génn yëpp meilleur élèves yi jigéen la te sondage bi ñu mujjee def école boo boo dem jigéen ñaa ëpp macha allah yàlla na jëm kanam te yokku waaye daal ci su nee na état bi jàppale daal ñu jàng bu baax bu mën a am ci yenn poste yi ba benn jigéen bañ some fii. waaw loolu am na solo ci yeneen dëkk yi ngay wax noonu mais aada yi ak culture yi ñoo ñoo bokkul parce que ñoom seen aada nangu na loolu mais ñun suñu aada nanguwul jigéen di ñu jiite xëy na nag amoon na euh, ay jamono yu yàgg si ay buur. mais jamono juñ toll nii ñun suñ culture nanguwul nii jigéen di ñu jiite. Euh, si culture bi ngay wax noonu c'est pas parce que culture lañ wax que c'est parfait euh, culture yu Sénégal am te ñu bon bëri na gis nañ fi culture boo xamante ne daf naan euh, ethnie pas ethnie mais caste bii nii du caste mun nu ñuy waxee caste si olof caste bi. xeet xeet bii nii duñ sëy ak xeet bee. gis nañ fi culture boo. tamit buy euh, culture yu fi yi fi bon bëri na. waaw waaw soo soo soo soo soo gisee loolu soo soo gisee loolu c'est que ñun c'est suñu suñu aada dafa am doole fii suñu aada fii nii dafa am doole nekkul li nga xam ni ay wax moo ko fiy jëlee. société bi fi ñu nekk nii mu duñ nangu jigéen jiite leen parce que aada bi moo nekk si seen deret. Euh, ay aada yi nii nekkul loo xam xamante ne day diriger euh, dëkk. Euh, si culture bu ma doon wax am na lu ma fàtte woon benn culture bi daf naan euh, xeet bi du sëy ak xeet bi beneen culture bi da ngay gis euh, mooy ay sëriñtu yi da ngay gis nit toog deful dara kay dem ay am ay sëriñ wala dangay dem ay sëriñ pour mu kii la te normalement soit da ngay gëm diine soit nga xool loo gëm. aada aada moo fi am doole. aada bi nag waruñ waruñ topp aada. léegi suñ toppee aada bi kon ñun dañuy accepté ne li ñu kii di wax li ñuy européens yi wala occidentaux yi ñu wax dañuy accepté ne ñun euh, société misogyne leen maanaam société boo xamante ne dañuy bañ jigéen ñi wala dañuy suufeel jigéen ñi maanaam soo suñ suñ toppee si li ngay wax dañuy jàpp ne jigéen ñi ñoom sëy mo rek lañ lañ baaxee ak togg ak taaj comme comme loolu la léegi su fekkee si li nga wax si loolu lañ jàpp donc am jigéen ñi jarul ñoom jarul am duñ am encouragement pour dem jàngi di di di dem jàng ba jàng fa sori suñ toppee li nga wax donc jigéen ñi fi góor war a nekk jigéen war na fa nekk pour euh, société bi eh, ñëpp am chance yoo xamante ne daf dañuy am chance yu égal léegi donc jigéen ñi suñ gisee ne am na jigéen bu toog doon président wala am na jigéen bu toog euh, bu doon bu occupé benn place bu nga na si dëkk bi dañuy daf leen di encourager ñu dem euh, jàngi wala ne man lii mooy sama objectif sama objectif mooy doon président de la république du Sénégal mun nañ dem ba atteindre ko même suñ ko atteindreul mën nañ ko jege Euh, jërëjëf euh, maam Thierno. ma ñëwaat si sànq li nga doon wax mooy jàpp naa ne état ko wax nekkatul da nga siy dugal ay affaire de culture wala ku nekk ak ni muy xalaatee affaire yooyu noonu dañuy wax état wax droit tey jiit nii jàpp naa ne fii nii bañ a wax sax jigéen mais individu bu nekk am nga sa droit genre yow yaay xool ba xam nag say droit da nga koy exercer ou pas tey jii suma ma tëboot man damay nekk président présidente tey. japp na ne kenn du ne ma non do ko nek, parce que amo droit munul nek parce que binduñu ko fenn am droit ma déposer am droit tamit nek fi comme goñu li ñu fi nek mais su lolu wesso man dama la bëgg laaj dara moy yow manam yow lan nga japp ne moy place jigen comme nga ne nga du président nek munul jité euh place jigen mom moom na ni mën nañ ko jox bépp poste fi ci Sénégal mais ñaar rek la xamni mënul nek muy mënul jiite réew te dëkk bi euh, ni muy doxee ñun dañuy wax euh, si si ay këyit dëkk bi dëkk lay seti la si ay kayit mais soo xoolee dëkk bi si norme yu muy doxee dëkk musulman la te amul benn musulman bi nangu ni jigéen di ko jiite. waaw ma ñëw foofu noonu xam nga dangaa wax ne dëkk bi nekkul dëkk boo xam ne si c'est laïque daal. te pourtant dëkk le monde il est laïque ñu wax ko benn yoon parce que dafa composé musulman chrétien ak yeneen ak yeneen i xeet tey jii yow soo déposé wala mën ma déposé chrétien bi mën na dem votel ma loolu du ci dara musulman bi tax sax daf may voté daf may votel parce que tamit man mënuma déposé musulman yëpp daal di mànkandoo ne ñoom duñ ma votel mënul nekk parce que xalaat yi ñu wuute tey jii yow fi ngay xalaatee ne jigéen du gouverner am na koy toog di xalaat ne jigéen de bu gouverner wee dëkk bi dina avancé. waaw jigéen moom euh, yàlla ko may bayre boobu lu mu laal mu avancé mais soo xoolee suñu réew mi nu muy doxee jigéen nañ ko encouragé mu jàng bu baax ndax tamit euh, jàng tamit yemul rek état wutalal liggéey mën nga jàng am si yenn formation yi ngay def walla jàng euh, pour am. Euh, état yu mu la soxlaay mais doo doo doo doo yaakaar yaakaaruma daal jigéen dina mës a jiite fii Sénégal ndax suñ culture en en tout cas dañ leen encouragé ñu gën a jàng di def euh, yenn formation yi euh, pour mën a am liggéey seen liggéey bopp.

waaw soo gisee jàngu jigéen ñi euh, pour ñu jiitee président dafay xaw a difficile parce que mën nañ wax ni âge jigéen tamit yàggul parce que soo toll si vingt cinq ans wala vingt ans yooyu dañ day euh, société bi dañu dëkk sa noppi naan la say say jëkkër jëkkër jëkkër jëkkër te te dégg naa si tamit euh, jàng pour nekk président dafa laaj temps soo gisee Euh, jàng jigéen ñi ni muy ni muy teel a yàqoo nii parce que tamit âge jigéen mën nañu wax ni yàgg nañ yàggul parce que soo amee vingt cinq ans da ngay da ngay dégg sa noppi ñaan la sëy kañ ngay am jëkkër genre yooyu noonu te nit ñi dañuy wax ni euh, président dafa laaj jàng te temps boobu noonu dafay yàgg parce que euh, di nga jàng ba ay trente cinq ans te daanaka jigéen daanaka bu am trente cinq ans daanaka âge nga. sànq rek mooy pression sociale pression sociale nekk na loo xam ne bëri na trop ci réew mi soo retardé pour marié yow rek yow xanaa dangaa lamb yow doo sëy kañ ngay sëy sa moroom yëpp sëy nañ mais tey ji nit dangay xam yow fi nga bëgg a àgg nga xam yow say objectif yi nga fixe tey su dee dangaa visé nekk présidente man jàpp naa ne waxuma sàmba wala waxuma Demba warul mën a tax yow nga sa nga nga dellu ginnaaw ci say vision ndaxte tey jii lo fa am tamit wala lo fa def wala tay tamit lu la fekk fofu non ci place bi ngay tok loolu yow la ak sa entourage waw mais tamit lepp da fay dugg si jang bi parce que lu ñu wax jang xalé jigen ni ñu tax mi téla yapp yàpp ndaw yi tamit am nañ si andon xalé jigen ni si àndandoo bi la wala ci fréquentation bi la wa nak dama si d'accord ak yow parce que ñu bari dañuy and ak nit alors que kooku noonu bëggaluñu ko lu baax tay ji su dé yow da ngay and ak nit nga nek nit ko xamné c'est da nga influençable manam dal suiveur nga da nga len di top rek luñ wax nga né waaw luñ wax nga né waaw ñooñu mën nañ la dugg. Euh, àndandoo euh, mais après euh, ku nekk ni da ngay am sa personnalité

Euh, ñu ànd ak ñoom mais su fekkee da ngay xool ne ñii ñoo gën a populaire si lycée bi wala ñoo gën a populaire si école bi xam ànd ak ñoom pour bañ a am ennemi yu bëri donc yow euh, sa nekkul sa jàng mais sa objectif mooy si euh, kon ñu ñëw man Thierno fi mu fi mu jeexalee si àndandoo sama moroomu jigéen ñi laay waxal ne maanaam sooy ànd ak nit. da nga koy jàng nga xam ba xam kii positif la lay indil wala négatif tey jii koo xam ne rek daf laa bëgg a entraver ak say objectif jàpp naa ne kooku da nga koo war a éliminer sa vie parce que yow benn objectif nga bëgg nga nga am mooy réussir jàppale ñi nga war a jàppale ba tax na muy mbokk ci ji bien mbokk muy xarit képp ka nga xam ne moom li nga nekk bëggu ko wala mu ngi siy gis ay problème wala mu ngi lay jéem a influencer si leneen bàyyi ko yow nga continuer sa euh, jërëjëf euh, soxna ajara ak euh, maam Thierno. soxna Adjara li nga wax am na solo bu baax léegi ñu jox maam Thierno mu tàggatoo après ñu daal di tëj. Ah, soxna mu tàggatoo ba beneen yoon incha waaw Serigne maa contane ci invitation bi bu baax di rafetlu tamit jotaay bi ndaxte thème bi amna importance torop comme ni ma ka waxee sank rek jigéen ni nañu gëna farlu respecté sen bop gëm sen bop fi mom ku gëm sa bop rek di nga dem te baña a déglu wax nit ñi. Euh, jërëjëf euh, Soxna Adja légui ñi tàggatoo toba benen yoon rek ci kapa TV benen émission beneen thème. Euh, sëñ Youssou ma nekkon ci caméraman bi. ak euh, talaa mi nekkoon mu nekk chef équipe bi ak ak ak euh, ñi toog di seetaan Maxadi Binta ak Ngone di di nuyu jaga son bi ak euh, chef technicien bi Moutala di jox soxna Ajira mu wax ko ko solal parce que sañse na lool ak zone bi macha allah. maa ngi remercier Ngone Maxadi Fashion bi aussi maa ngi remercier Binta si bi si présentation bi euh, man lan laa waxoon sànq. waaw après ah, ah, dina ko dagg après dina ko dagg. léegi lan laay développé. waxal. ci ah, jàngum xale yi. la ci ay néegu sëy affaire yooyu noonu si parents yi la parce que parfois parents yi ñoom. dafay gàtt wala loolu lu comme li mu wax nii. Euh, message la yéen yi dal dara waral jaral dara. <laughs> waaw. jigéen mën na gouverner. waaw boole ñaari no, non dafa lu maanaam da ngay pour wala nga contre rek fii nii jigéen ñi ñu ci bari yàlla bëgg te woon la mel <laughs> eh, eh, di di jox sona